monsieur Faye Biram euh, directeur agence d'assistance à la sécurité de proximité ñu gën ko xamee ASP ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak leen naan jàmm soxla Elisa. Mhm. tey jii ñu wax ci li nga xam ne mooy agence bi nga euh, jiite euh, bañ koy créer mu amoon lu taxoon mu taxaw ndax jàpp ngeen ne ba tey mu ngi wuyoo lañ ko doye woon. wuyoo na ko weesu na ko ci lu baax ñu lay gërëm ci laaj bu am solo boobu. Mhm. ndax agence bi ba ko géej ci réew mi di ko xalaat di ko sos kaaraange moo ko taxoon jóg. Mhm. jàppale way takk yi maanaam suñu partenaires yi njëkk muy police ak mari jàppale aussi yeneen administration yi ci wàllu kaaraange mais jox fukki junni ndaw aussi lu ñu mën a téye ngir jàpp ci ñuy tabax réew mi. Mhm. mun naa ni jéggi ñu ko lu tax ma wax ko mooy xale yooyu fukki junni lañ tàggat nañ leen ñaari junni police junni gendarmerie. Mhm. junni ci administration territoriale ñaar ñu ne xale ci bokk moomeel yi gox gox gën ni ci këru diine yi donc ñu ngi fépp daanaka kaara gi moo ñu taxoon jóg mais tey en fonction euh, formation xale yi ak manquement yi ñu fekk fi ñu leen yebal. Mhm. ci wàllu ressources humaines dañ leen di jëfandikoo comme chauffeur comme garde rapproché comme assistante comme secrétaire comme archiviste comme comptable comme informaticien comme infirmier donc mun naa ne liñ doon liñ leen doon de weesu nañu ko. Mhm. Euh, tey agence bi royukaay la ci Afrique. dem nañ Abidjan boobaak léegi def na juróom-benn weer présenté modèle sénégalais fukki réew ak juróom yi ngànk CEDEAO Tchad ak Mauritanie ne nañ bëgg a ñëw Sénégal ngir jàng modèle sénégalais bi ci wàllu secret de proximité moo taxoon amal conférence internationale régionale bi nga xam ni seen xam-xam màcc dem ci wàllu liggéeyu ndaw ñi ak wàllu kaaraange ñëpp a ko teewoon Mm-hmm. donc tey mun naa ne coow li bari woon na ci ndorteel li waaye ci cappaandaw li président. Mm-hmm. yéen projet bi dafa mel ni ci biir dëkk bi lañ ko gën a comprendre que ci capital bi. parce que tey liñ leen di ngañ bëri na lool. ndax foog ngeen ne communication bi jàll na. waaw communication bi ñu ngi koy renforcer ñu ngi koy yokk ñu ngi koy euh, gën a jox gëdd. Mm-hmm. ñu ngi leen di ngañ mun naa ne bariwul boo xoolee ci lim gi fukki junni boo xoolee seen tolluwaay muy ay xale yu toll ci seen diggi jamono. boo xoolee aussi liggéey bu am solo bi ñuy indi. Mhm. ndax ñu ngi ci kaaraange gi ñu ngi ci administration bi ñu ngi ci pàcc yëpp di liggéey suba góor gu dégg bëccëg te seen nekkin ak seen peor demewul noonu. Mhm. ndax neexal lañ ne di jox weer bu nekk muy pécule ak benn prise en charge médicale quatre-vingt pour cent. am benn mutuelle bu nekk si kër góor gi ak benn centre médico-social bu ma installé. Hmm. ak benn gratuité transport dem beeg dëkk bi fa mel région Dakar Mbour Saint-Louis ak Kaolack ñu ngi hmm. liggéey aussi pour transport bi euh, mu gratuit ci Sénégal yëpp donc mun na ne ñu ngi leen di tàggat aussi pour seen engagement bu jeexee ku nekk mun a woyee ki bagam am métier bu moomal boppam. nañu gi mënut a ñàkk domaine boo jël am na ñu juum donc boo xoolee fukki junniy ndaw nga yore leen ñu toll seen digg jamono di liggéey liggéey bu am solo bu mucc ayib mm. te nekkit beeg peor bi demewul noonu mun ta ñàkk juum mm-hmm. mais na ngay toog ñetti weer doo dégg kenn ku juum ci ñoom parce que rigueur bi dafa bokk ci formation bi déontologie dafa bokk ci formation bi bu loolu weesoo aussi su ak ngoon ku dégg bëccëg ñu ngi posé action héroïque nga dimbale ay nit ñu làpp ñu ngi dimbale ay nit ñuy xaru ñu ngi dimbale ay nit ñuy mucc comme Philippe Senghor la fa xew yàggul dara comme euh, cité Mixane la fa xew yàggul dara ñu ngi for xaalis di ko delloo comme deux millions yooyu kenn for euh, mosquée omarienne delloo ko. Mhm. donc li am solo tey boo xoolee lim gi ak solos liggéey gi ñuy amal. ak ni ñu amee maillage territorial national ak institutionnel mun naa ne juum mënut a ñàkk waaye juum yi ñu juum bariwul te ñu ngi leen gën a tàggat ak rigueur ak déontologie ah. ak yar ak teggin pour ñu mun a tàggoog yooyu. Euh, ñi nga xam ne mooy promotion bu njëkk bi euh, seen i contrat renouvelé nañ ko ñaari yoon tey jii ñoo ngi xaar pour weeru décembre ñu xam fu ñuy mujjee ndax dafa am ay projet yi ngeen am pour ñoom wala euh, da da ngeen leen di libéré noonu. waaw li am solo mooy yoon daf ñu digal ñu libéré leen. Mhm. ndax seen engagement ñeenti at la war a def ñaari at yu nekk ñu xayma liggéey bu ñu def yeesalaat ko pour yeneen ñaari at donc boo boolee lépp seen engagement war te weesu ñeenti at comme ni ko armée di defee ak yeneen dëkk yi euh, euh, euh, volontariat am développé wu koy defee mm-hmm. dañ leen jël ñeenti at dañ leen war a ñeneen njiitu mi ci maaxam moom moo ne ay xale lañ togg si digi naw gëm wooteem ñoo wuyu si mu bëri ci ay kàngam yu jàng bëri ci ñoo am métier ak ñoo xam xam-xam-xam jël seen jëmm jox ko addiya askan wi di leen liggéeyal ci fànn yëpp ci pàcc yëpp njiitu réew mi ne nañ leen yokkal ñetti at yokkal nañ leen ñetti at teg ko ci ñeenti at yi leen yoon mayoon donc normalement dañ leen waroon yeewi mais njiitu réew mi moo ne nañu daje waxtaan xalaat pour seen ëllëg donc jamono ji ma yow def na ñaari lël yoo xam ne dañ ci woo ñëpp ñu seen xam-xam màcc jëm ci kaaraange seen xam-xam màcc jëm ci wàllu liggéeyu ndaw ñi maintenant conclusion travaux yi jox nañ ko kilifa yi comme paaka kenn du ko jiitu ci maram ah, na ñu déglu am nañ yaakaar que seen ëllëg dina dàq seen tey incha allah. responsable politique nga ca Fatick tey ji euh, duñu waxtaan te duñu wax ci local yi donte amagul date euh, ndax am nga ay ambition politique foofa ca Fatick. xam nga euh, waxtaan wax dëgg ca la doomi aadama buy dund am na ay ambition. homme politique bu dund itam am nay ambition. Mhm. man dama nekk ci mission boo juddoo ci dëkk jànge fa màgge fa denc fa say wa sa wàjjur di fa dem am fa cofeel dëkk ba defal loolu nekk boo amee opportunité pour wàccoog dëkk boobu da nga koy def donc am naa projet ak ambition pour Fatick bien sûr mm-hmm. mais dama nekk ndaw bokk ci parti ku bokk ci parti xam ne du loo moomal sa bopp loo bokk gépp la ku bokk ci parti koo xam yow yaa nangu war a doy loo kàddoom aussi donc bu fekkee ne man sama parti ànd ci sama coalition ànd ci donc gisuma ci benn jafe-jafe. wax ci troisième mandat bi ñoo la dégg euh, ci victime nañu ne loolu mën na ne tey jii lan moo ci sa xalaat ci mbir mi. comme ni ma la ko waxee sànq rek. ah boo bokkee ci ab parti kuréel la bu ay góor ak ay jigéen bokk du ut wala yor nguur lal ko ci programme ak ci idéologie ci ci ci ci ci ci ci jàmm ak ci dal président mooy suñu njiit moo ne mayul kenn. mu wax xalaatam ci euh, ci trois ci mandat boobu ci mbedd bi wala feneen furul ci parti bi donc mënuma def lu dul euh, euh, jox cër maanaam kàddu yooyu nga xam ne sama kilifa yëkkati na ko donc mënu ma wax ci mandat boobu feneen fu dul parti bi ma bokk maintenant débat bi nag posé nañu ko dégg ngeen ay constitutionnaliste ku mel ni Babacar Gaye bu nekk université mu ne mandat ci constitution la mandat bu lalu ci droit la mandat bu lalu ci yoon la mandat bu lalu ci dëgg la déglu ngeen ko mel ni Baxte bi nga xam suñu soppe la suñu la mais àndul ñun mais mandat boobu mandat bu constitutionnel la bu juridique la bu légal la déglu ngeen ko mel ni Bamba Fall aussi donc bi posé nañ ko opposition opposition bi ñu ci bari bokk wala ñu ci gën a ràññee ak intellectuel boroom xam-xam yi nee nañ mandat boobu lalu ci constitution la mandat bu lalu ci ci droit la mandat bu lalu ci loi la ñun nag waxaguñu sama parti aussi waxaguñu ci ku yor kàddoom foofu laa ci mën a yem. wax ci action citoyenne euh, bu yàggul rek amaloon ngeen don de sang yéen euh, agence donc de sécurité de proximité amaloon ngeen don de sang ndax mën nañoo xam ñaata poche ngeen jot a collecté ci seen ndaje yooyu. waaw ñun nañ nekk ay ndaw toll ci fukki junni. diggi jamono comme ni koy waxee nekk cible lu askan national transport. ak réew mi te soxla dañ ko bu baax a baax ki la ñu dajale dajaloo waxtaan ne war nañ mun a dimbale centre boobu dimbale suñu bopp parce que don de sang da ngay dimbale sa bopp dafa baax ci wérgu yaram dimbale ay nit dafa ay sobe ay dudd ñi am feebaru cancer yooyu mel noonu aussi dafa baax ci ñoom ci la ñu jëlee dogal bi organiser ko donc tey xayma mun naa ne am nañ euh, ñaari junne ak juróomi téeméer maanaam deux mille cinq cent poche yoo xam ne récolté nañ ko ci Sénégal suñ quarante cinq unités départementales yi jébbal nañ ko waa centre national de transfusion sanguine li gën a daw suñu yaram fu mel ni Ziguinchor dañu pare léegi léegi léegi téeméeri poche soixante dix poches yi ñu utiliser juróom-ñaar fukki poche de sang yi ñu utiliser ci saasi ñu jëfandikoo leen ci saasi pour wane maanaam soxla si ni mu amee woon solo ak ni mu tare woon donc tey mun naa ne am nañ deux mille cinq cent poches yu ñu récolté jëmal nañ ko waa centre national de transfusion sanguine parce que au de bon bu kaaraange gi weesoo aussi ñun ay ndaw lañ yoo xam dañu am patriotisme am civisme et puis réew mi rek tax ñoo jóg ñu koy liggéey ci fànn yëpp ci pàcc yëpp te laajuñ ci payoor donc loolu kenn waru ci jiitu su ñu nekk ay ndaw donc ñu ngi gërëm waa centre bi di gërëm aussi suñu partenaires yi di gërëm xale yi di ñaan askan aussi ñu gën leen jox cër ngir leen wekk gën leen warmal ndax ay ndaw lañ suñu doom lañ suñu rakk lañ di ñu liggéeyal liggéey bu mucc ayib moo xam ñëpp teg nañ seen i gët donc mérito nañu au moins suñu respect suñu considération ak suñu estime. màggal édition deux mille vingt bi ñaata ndaw ngeen yebal ca Touba. démb dem nañ Touba kilifa yi muy xalif bi dalal nañu ñu koy gërëm na xatoon na ak àjjuma ji porte parole bi sëñ Bass Abdou Khadre dalal nañu vraiment ngan gu am solo ñu ber nañu benn yu am solo maintenant li ñu yóbboon Touba nag lenn la kese moom mooy dañu am euh, ñaari téeméeru ndaw Touba euh, am aussi juróom fukki ndaw ci bokk moomeel ci commune Touba yoo xam ne dañuy dimbale commune bi ak waa trésor ci collecte taxes yi ak euh, ci màggal bi bon këru diine yëpp ak euh, kuréel yi nekk Touba am nañ fa ay ASP fu mel ni jumaa ji fu mel ni daaray Kaamil fu mel ni daaruy Minam fu mel ni euh, résidence Xaadim Xaadim Rasul fu mel ni euh, Kër Bastik Abdou Xaadir mel donc ñu ngi fépp daanaka donc loolu lañ demoon xool yi ndaw yi fa nekk ndaw yi nekk di dimbale mairie bi ndaw yi nekk ci kër sëriñ yi ndaw yi nekk ci kuréel yi ñoom ñëpp ñu ngi liggéey liggéey am solo ñoom itam ñu ñaanal ñu bu baax a baax ñu jëlaat ndaw yi nekk ci région euh, Diourbel yëpp mettre à la disposition des xale pour le magal ñu jàppale police jàppale gendarmerie également donc loolu moo ñu fa yóbboon ñuy rafetlu ngan gi ba ñu ñibbi si jaar nañu euh, cë jaan aussi joxe suñu gaal euh, voilà donc loolu lañ ndax jumtuwaay yu mat gunge ngeen ko seen ndaw waa waaw jàppale ngeen bu baax jàppale nañ leen unité euh, départementale yëpp yónnee nañ leen xaalis pour ñu aar xal jumtuwaay yi mooy euh, ci Covid bi xale yi dafa am liggéey bu am solo amal. Mhm. jiitu mooy sécuriser à vivre yi sécuriser stock vivre yi joxe aussi vivre yi joxe aussi bourse sécurité yi xale yi aussi sécuriser nañ lieu ja yi jàppale nañ service de préfection boo demee kenn depuis année bi mel ni Talimata dañ leen di jëfandikoo comme ay relais communautaire comme ay ay euh, interprète ay guide traducteur Fatick foog ne Rufisque suñu wala aussi donc jàppale nañ leen yeneen i xaalis unité départementale yëpp pour ñu aar mhm. leen. ngir ñu mun a aar ngir ñu mun leen aar pour ñu mun a def seen liggéey. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di jéggalu ci dégg-dégg bi euh, bu mu mujjanteel bi. waaw dañ nekk ci yoonu. ngir yóbbu suñu njaal ñu ngi lay gërëm di la sant di mhm. gërëm euh, ñi ñuy déglu di ñëpp. merci beaucoup.